asalaamaaleykum wa rahmatulah maa ngi ziar di balu ak donc euh, si analyse yi dama doon dégluwaale di leerale ma ne de euh, série maîtresse de nos mariés c'est la c'est la pure vérité voilà des séries yu nga xamante ni moom la ñu war di wone dafay yeewaate dafay wax ce qui se passe réellement et loolu euh, toll nañu temps bu nga xamante ni dafa war a nekk donc. pour ce qui concerne Dior et et Biram Biram moom saay-saay la moom noonu dafa réew waaw Biram dafa réew waaw c'est un enfant gâté mais quant à digganteem ak joor donc euh, am na étincelle d'amour bu commencé génn donc ragal naa suñu continuer ndobante dina am et ça risque de porter préjudice à Jalika ak seen amitié donc pour pa Euh, soit euh, c'est le violeur de, euh, de la fille, là, Raki, je crois qu'il s'appelle, ou le, euh, c'est son père. Hein. En ce qui concerne Mariem, Mariem, euh, elle est gentille, elle a un bon cœur. Et parfois, elle se met à la place des autres. Hein. Donc, nique-le, mais peut-être qu'elle n'a pas euh, bénéficié d'une certaine éducation. Lolo motax mu wala donc mu nekk ci beneen euh, level loolu moo ko poussé peut-être mu dem dëkk feneen donc pour ce qui concerne euh, Lalla on la comprend hein, elle est un peu déçue parce qu'elle avait une assurance vis-à-vis diggante moom ak jëkkëram mais li mu war a xam mooy góor waroo am assurance cent mais sëykat la elle est brave donc euh, peut-être que su waxtaan waxtaanoon ak euh, jëkkëram peut-être que ça va pas se passer comme sa mais parce que léeg-léeg sa jëkkër dana dugg ci yenn situation di nga xam nooy lijjantee ba mu ba mu génn ci waaw parce que y a des hommes qui s'attachent tellement vite ba nga xamante ni euh, pour se retirer c'est góor ñu bari booy xool loolu moo leen di dugal ci ay ñaari jabar dañuy dem euh, soit ñu ji leen fa teraanga wala ñu miin am na ñoo xamante ni dañuy am xarit sax euh, mu leen di def lu leen naqari mais duñ ko bàyyi donc miineel boobu la ñuy ragal ils ont peur de sa décoller waaw changement la bañ donc voilà Heureusement que Mariam n'est pas entrée voir Lalla, sinon de ne disjoncter un tour. Pour ce qui concerne Djalika, eh, elle est très bien appréciée, vu sa fidélité. Elle est fidèle. Donc, euh, et puis, Lou parle. Donc, elle est fidèle en amitié, elle est fidèle en amour dans son foyer. Tout ça là, ça compte beaucoup. Donc, pour ce qui concerne le couple de, de Raki, je crois, hein, l'ingénieur en, en, bâtiment là, euh, tu vois, avec euh, son homme, sa file la euh, un amour. Hein. Vraiment, le gars, le, le Mais sa maman n'est pas gentille du tout. Donc, pour Cher, euh, Cher, euh, euh, on ne le condamne pas trop. Parce que, parce qu'il aime, il aime dafa bëgg Lalla ba léegi te bëggul yàq li mu construire ak moom tandis que Mariam peut-être beneen kii la ci moom Euh, euh, en plus la ci moom donc euh, c'est pas parce que dafa bañ laal bañu laal la et elle veut garder toujours sa lala mais elle Mariem parce que avec Mariem peut-être dafay dugg ci beneen gamme waaw tandis que avec kii avec lala il est trop chouch chuchoté te góor doo ko toppatoo torop rek ça devient trop monotone donc muy dugg feneen xam nga. léeg-léeg mu defante xam nga yooyu euh, ça compte pour un homme waaw donc pour ce qui concerne euh, Bakary donc euh, voilà moom itam voilà mooy loolu mooy mooy papa yi c'est comme si moom moo jur le biram la waaw biram moom. entre parenthèse dama ko xaare parce que dafay métital Tchelika <laughs> ben voilà en tout cas eh, série bu bu baax la bu vraiment très appréciée muy mag muy xale muy mag muy ndaw ñëpp a koy seetaan ah. man vraiment si je vous donne mon âge que mère bi lu muy doyee di seetaan kii bi mais vraiment euh, série bu baax la daal et nous vous souhaitons une bonne continuation ah vraiment lu baax la daal merci beaucoup bon après waaw naa leen baax jaar ziar maa leen di jaar baax a baax di leen wax ne série bi moom neex na torop macha allah neex na torop torop man dama ci Marème Marème moom mu ngi daal moom li ñuy wax rek nit fu war a mën a nekk ak famem mooy tax lu bari du ko def. wala lu muy bëgg a dugg lu nekk dina xalaat sama famille su ma ci duggee lii lañ may wax wala lii lañ may def xam mais bu fekkee da nga dëkk yow kese xalaatoo dara ci li ngay def danga yaakaar ne chaque jour rek looy def rek noonu la ba toujours yaa ngi def loo xamante ne nii moo lay gaañ mais doo xam. ndax lan mooy amoo kenn koo xam ne dalay nekk sa côté xam di la waxal li ngay def baax na wala li baaxul moo tax lu bari muy dugg ci yoo xamante ne nii daf koy indil ay problème ñun problème mooy euh, nekk na ak Cheikh Diagne xam di génn ak moom ba ñu bëggante ñoom ñaar ba marié te mënu ko gis dama yaakaar ne loolu noonu bu nekkoon ak famille mm, loolu lépp du ci am parce que dinañ xam kiñ koy may kan la moom tamit dina xam kiñ koy man may kan la d'accord moom mën na xam kiñ koy may mais moom seegaan kiñ ko may moom xam na ne mareem la rek mais xamul benn famille bu Marème waaw parce que Marème série bi moom yaayam rekk lañ ci gis benn yoon mu dem seeti yaayam boobu lañ ci gis yaayam kon dama yaakaar ne bu nekkoon ak yaayam lu bari du ko def wala mu koy wax wala muy dugg ci yu nii dañuy wax toujours nit ki dafa war nekk ak famille am lu bari du ci dugg. mu ñëw ci kaawu Lalla Lalla déjà Cheikh Diagne bëgg na ko trop trop trop mais góor kenn du ko topp waaw dañuy wax ni góor boo ko toppee nit kenn du ko topp ba mu sës boo ko toppee ba mu sës rek dana def loo xam ne bëgg ko def waaw gis ne moom waru woon def loolu parce que nit mën nga régler say problème bi nga am ak sa kër war nga ko mën a régler ci biir kër gi te doo ko topp mais topp nit ba ci buntu kër wu jaamoo loolu man rafet luuma loolu daal man ànduma ci loolu noonu ba tax na moo tax li lépp dal ko parce bu toogoon fa mu toog jàpp jëkkëram comme nam ko jàppee woon peut-être Cheikh mën na bañ a takk Marème ñëw ci kaawu rakki rakki moom man premier jour bi ma gisee paa bi ci chantier bi moom dama gis ne moom mooy papaam parce que ni mu ni mu ko gisee noonu ak yërmaande bu mu am ci moom moo tax ma xalaat ne kii tôt ou tard yeneen kii ñëw dina gis ne dina ko gën a jege daal ba ñu bari xam ne moom mooy papa man loolu laa njëkk gis moo tax bi ma ko gisaatee ci buntu kër bi mu ne ah, waaw lii moo mën a nekk kay waaw man gis naa ni papaam laa gis ne daal moom la mais tamit mompaa bi fan la nekkoon ak euh, ci lan la nekkoon ba am âge boobu noonu xam nga bu war a mën a am doom boo xam ne nii xamu ko doom ji xam ko tamit loolu affaire bu grave la quoi parce que da gis eh, ay nit yenn saa yi ñu nekk ci benn dëkk yàgg fa lool xam màgget ba ci benn aat boo xam ne doo xam ñoom fan la seeni mbokk nekk wala dara dox seen àdduna bi yëpp daal ba mujjee fii nii wëlbatiku xam nga doog retourné di wër du ñu xam seen famille fan la nekk loolu dafa bàyyi waaw en tout biram moom mook ndaw si dañoo bëggante man loolu laa gis parce que boo gisee ñoom ñaar euh, saa bu ñu toogee rek boo xoolee ci seeni bët ñoom dañu bëggante waaw mu ñëw ci Racky ak Tapha Racky dafa nopp Tapha ba dof boo gisee nim koy xoolee rek xam na kii xool ku bëgg moom la koy xool mais du nangu waa moom nanguwul mais Tapha moom chaque jour dakoy koy présenté mbëggeelam gu mu am digganteem ak moom mais nag kii dafa bëgg Tapha daf ko bëgg trop sax mais ñu daal